waaw Khadija tey ñu ngi grand théâtre soowu Ngaaka Blindé bi ñu fekk fi benn bandi Paco Brise King Lebu yëg nga ni 2018 moo feesaloon grand moo feesaloon Sorano 2019 fii ñu nekk nii tey moo ko duyoon ba mu fees dell tey nag moom lañ fi fekk mu ñëw si soowu Ngaaka bi fas yéene waxtaan ak moom tuuti si bagage yi nga xam ne mi ngi koy waajal ak ci nu jóge Paco fi nga ñëw nii lu mu lay fàttali. waaw bëggee sama copain Jili maa di nuyu. ñi nga xamante ne ñu ngi abonné e chaîne Equivox TV yëpp waaw Paco Brisé kii King Lebu mm-hmm. waaw ñu ngi Grand Théâtre donc fii mën naa ne sama kër la actuellement sama gaale la mm-hmm. donc defoon naa fi benn affaire récemment ñu defoon ko guichet fermé bu affaire bu extraordinaire mm-hmm. voilà tey ngaa ko xewle donc il faut ñu ñëw aussi def support parce que lépp rap galsen la quoi rap galsen moo si gagné voilà loolu fierté lay doon à chaque fois ñuy gisaat même tête ñëwaat donc euh, voilà c' est Sénégal qui gagne c' est le rap galsen qui gagne da nga ñëw pour prester wala da nga ñëw pour support si sa sa jo Ngaaka Blindé waaw tey mu war naa def benn benn affaire bu sew vite fait mhm. voilà loolu moom bu xewlee dañ siy ñëw moom même chose que ñun bu ñu xewlee aussi voilà day ñëw ko loolu mooy mooy deal bi quoi. Mhm. mais boo gisee yenn artistes yi di jël grand théâtre yow mi nga xam ne jël nga ko def ko gisee fermé num lay def da nga leen di yërëm wala da ngay naan non. non Ngaaka moom il la am na habitude bi Ngaaka defoon na. Mhm. feesaloon na avant may def guichet fermé moo fi njëkk def sax guichet fermé je peux dire si suñu génération quoi donc on peut dire que ay 2000 kañ la woon sax. Mhm. yàgg na en fait def na fi guichet fermé donc voilà bokk na si li motivé ñu bëri ñu jël ay salle donc Ngaaka c'est à saluer un gars un gars courageux quoi comme tenu à chaque fois day jéem jël ay initiative di ko jël muy nekk ay obstacle mu koy franchir tu vois mm. donc bokk na si ñi influencé ñu bëri donc voilà tiituma si moom mm. ñeneen ñi koy jël aussi tiituma si ñoom mm, parce que actuellement Rap Galsen mu ngi nekk si benn mouvance bu extraordinaire public bi dañuy répondre quoi mm-hmm. voilà il suffit nga wane lu positif rek am sa base am sa ñoo xam te ne fan buzz la nga am noo defee sa communication dañ lay répondre donc lépp stratégie la donc quoi c'est ça en fait est-ce que fi defoon waaw mën naa ne réussite totale lañ amoon ah, ñu ngi si doon seet mu fees donc fees na ba am ñu nekk si biti donc guichet fermé loolu mooy guichet fermé en en mot au mu fees ba am ñu nekk si biti mhm. donc c' était un plaisir mu mel noonu donc di remercier ñëpp ñu defoon déplacement bi mhm. di wax Sénégal moo si amoon ndam Rap Galsen moo si amoon ndam à chaque fois dañuy bëgg di jël ay challenge quoi mhm. année bu nekk dañuy bëgg a jël benn challenge réussir ko à chaque man j'aime bien moowu kii dafa nga wala moowu kii kii lan moo tax mu yaakamti c' est pas ça ça pas dire que da lekkulee da nga koy rënk ba mu nëb quoi il faut ñu lekk loolu noonu seet leneen luñ ji ba mu ñor ñu lekkaat ko quoi. chaque année da nga ñuy defal benn surprise déwén mën nañ la xaar stade. bien sûr waaw stade wala feneen ah fu leen neex na gars yi choisir ah. <laughs> mais des fois doo dégg gars yi naan Paco Briz dafa dëgër fit booy bi dafa doj booy bi dafa lii tellement que fi ngay faral di yóbbu gars yi chaque année Sorano Grand Théâtre déwén ñii ñëpp xel yëpp dañ ni stade nga jëm. Mm. de doo dégg ay retour yooyu Paco Briz booy bi dafa rëy booy bi dafa bëgg lu rëy booy bi lii laa. waaw dama dama koy dégg depuis le début kañ depuis le début booboo gënoon nekk risque sax je peux dire que ñu bëri xamuñu ma woon doon soog génne projet le même jour. Mhm. jour bi mu génn ma dem Sorano le même jour génne projet bi le même jour. Mhm. jaay projet bi le même jour mhm. loolu lan moo la koy may au début mën naa ne base la en fi nga dëkk. parce que artiste dafa am solo si nga am base xam nga hip hop égal représentativité donc fi ngay représenté à chaque fois ñoo lay follow. buñ la poussé ba ñëpp gis la affaire nga flop ça sera difficile nga rebondir quoi parce que début moom lañ lay juger mhm. donc yoof la woon base bi la donc di wax gars yëpp ne leen base dafa am solo mhm. ku nekk na représenté fi mu dëkk ku nekk aussi na représenté rap Sénégal parce que ñun ñëpp moom la ñuy def mhm. loolu à chaque fois dañuy bëgg di jël ay challenge di dégg naa lu nekk da nga ëppal yow te am na lu nekk sa gannaaw am na ku lay jox million yi am na fooy jëlee xaalis shout out jéggi raay ñu jàppale si job bi shout out sama team aussi shout out ñëpp ñu jàpp si job bi voilà di motiver ñi nga xamante ne ni euh, ñu ngi si benn affaire bu ma doon déranger rek moom mu motiver à chaque fois may bëgg di jël ay challenge mooy j'en avais marre di dem ñu may invité rek si ay concert may dem di jouer yor en tant que invité. waaw dama bëggoon di invité tamit nit yi au fait dama bëggoon di teg sama ay propre affaire sangoo ndox bu tàng bi xam ne pression bi metti na ma invité samay naataangoo ñu ñëw jouer mhm. dama bëggoon créer sama propre plateforme mhm. créer sama propre événement invité comme ni ñu ma doon invité quoi mhm. loolu la bëgg nañ di def leneen ak leneen lu gën a lu gën a lu gën a lu gën a rëy quoi 2020 lu ñuy xaar si Paco Briz ah, ñu ngi si projet bi ñu ngi job suñu album mënaguñu ay nit yu bees yoo war a defal la job mhm. donc da nga leen di si projet bi ay partenaires yu bees yu ñëw puzzle yi éléments yi di gën a réunir donc projet bi lu muy gën a denc rek day gën a xeeñ neex voilà mhm. mën nañ ko am si 2020 bi mais c'est pas dit que ne c'est forcé mën nañ am leneen ak leneen aussi mhm. mën nañ nekk leneen amortir projet mën nañ indi leneen avant projet de toute façon son yaa ngi ñëw vidéo yaa ngi ñëw incha allah am na solo Khadija ki ma taxawal Paco Brise ren lu El Jazz gagné lu Elzo Jamdong gagné muy meilleur EP 2018 moom moo ko gagné woon benn projet bu nice bu mu génnee woon tuddee ko daan rap ñu koy bëggee bu baax a baax di ko ziar wax ko dinañ ko dalal ci plateau bi ñu def moom émission bu doy waar Paco Brice aka King Lebu mais tur boobu tur boobu noonu King Lebu gars yi xëccoowuñ ko ak King Lebu sax du loo xam te ne man maa ko tuddee sama bopp en fait du loolu quoi mhm. je me rappelle c'était sur Instagram xam nga ñi lay follow souvent dañuy dañuy dañ lay dañuy fier si yow a mm-hmm. chaque fois yow da nga leen di représenter partout ñuy gis ne saa yoo demee da ngay tudd yoof xam nga mm-hmm. yoof buñu nee lébu nee nañ yoof ak lébu xam nga ça rime donc à chaque fois dañuy gis ne yow tu représenter yoof village yoof yoof man yoof laa dëkk depuis le début benn son ba projet bi léegi bàyyiwoo loolu après gars yi dañuy gis ne yow tu représentes le le quartier dignement léegi am na si commentaire à chaque fois hashtag King King Lébu may liir muy am culture mhm. xam nga culture urbaine culture urbaine la ñu wax mhm. léegi Lébu égale culture King Lébu c'est quelque chose d'extraordinaire ma ne noonu lii dama koy jël mhm. dañ ma ko jox ma après ma nangu ko en fait c'est ça mais xëccoo ma ko kenn kenn xëccoo ko man aussi am na solo Xarisa ñu ngi koy bëgg bu baax a baax ñu duggaat ci biir xoolaat yeneen daanaan dëkk leen seen micro Equivox TV jaajëf jaajëf Khadija ginnaaw bi ñu jógee si Paco Brice ñu fekkaat fi benn ndaanaan Karbala aka Karbaze from Grand from xaar yàlla weetin goot këse naka mu yee maa lay nuyu Djily Der di mhm. nuyu xam internet yi di seetaan Equivox TV yëpp mhm. di la siyaar di la shout out gars yi nga xamante ne bi ne ñu ngi bëggee yëpp di la mhm. wax ne la xam nga c'est un plaisir ñu gisante waat et puis c'est un plaisir tey jii nii tamit ñu répondre si seen interview quoi dëgg la yeemaan am na solo Karbala temps yi nga génnee benn single bu nice comme mala comme mala looy wax comme mala ñan ngay waxal waaw nit yi ah. parce que boo xoolee tey jii nii euh, voilà bu ñu defee benn benn constat général si suñu société bi ñuy dund nii. Mm. nit ñi léegi dañu bëgg gën a jege seen comportement dafa gën a jege comportement mala yi quoi. Mm. parce que tey jii nii mun naa ne mala boo jël rek. Mm. am na benn doomu aadama bu muy reflété. te loolu noonu bu ñu demee ba toll si dimension boobu noonu il c'est c'est c'est l'heure que c'est l'heure de se poser des questions quoi. ñu dellu siwaat si suñuy moo nekkoon suñuy valeur d'origine. si valeurs yi nga xamante ne bi nii moom lañ ñu moom lañ ñu sénégalais mm-hmm. parce que tey jii nii liñ a perte moom mooy suñu identité quoi mm-hmm. am nañ carte d'identité am nañ carte d'identité am nañ dëkk am nañ destination am nañ lépp mm-hmm. moo taxoon ñu naw sénégalais yi moo ñu respecté sénégalais yi un peu partout dans ñu defaat sonnette d'alarme comme ñu ñu wax rek rappeur dafa doon benn messager dafa doon ki nga xamante ne bi nii moom mooy tirer la sonnette d'alarme bu danger waree ñëw si société moom mooy doon pare yi nga xamante ne bi nii moom moo koy défendre mm-hmm. donc looloo tax ñu génnee saan boobu noonu mm-hmm. pour delloo siwaat xelu nit ñi pour delloo siwaat conscience su doomu aadama yi xamal que leen leen mm-hmm. changement buy jógee du jóge feneen di si suñu dëkk ñun ñooy jël affaire yi en main pour mën a changer affaire yi nga xamante ne bi nii moom mooy suñu destin quoi donc looloo tax ñu génneewaat saan bi mu nekk saan boo xamante ne bi nii c'est bien apprécié des Sénégalais aussi tamit gars yi ñu bëri jàng nañ si leçon quoi ñu bëri xamaat nañ si delloosiwaat nañ si. parce que delloo delloosiwaat nañ lu lu nga xamante ne bi nii mi ngi doon commencé di di di réer si si si si hip hop Galsen muy muy écriture. Mhm. écriture nag dafa doon benn affaire boo xam ne dafa am solo. Mhm. parce que dem nañ ba nga xamante ne bi nii rap bi dévaloriser nañ ko ba nga xamante ne bi nii ku jóg rek mun na nekk rappeur. Mhm. te rappeur au dafa nekkoon nit koo xamante ne bi nii li mu doon li nga li nga daan dégg si ay parole dafa doon loo xam ne dangay ngay xam ne kii dafa toog xalaat ko mm. réfléchir ko pour génnee ko quoi loolay doon ay son yi nga xamante ne bi nii son son yi dund dans le temps la quoi mm. donc may delloo si euh, sama xel si sama xelu sama mbokk mborom mm. rappeurs yi mm-hmm. di delloo siwaat xelu euh, ñi nga xamante ne bi nii ñoo ñooy melomaanu hip hop yi ñu gën a delloo siwaat si suñuy valeur d'origine delloo siwaat si suñuy identité looloo tax ma def son bi quoi est-ce que du Karbala dafa liir game bi gis jamono bi boo yëpp di classante ku génnee son classe ku génnee son classe depuis ba albumu dib bi génnee ba léegi mu ne xaaral a génnee son bi comme mala pour wax ak booy yi nga xamante ni ñu ngi mbëkkante seen bi waaw loolu aussi am na si quoi parce que tey jii nii euh, voilà munoo di topp munuñ munuñ di di di di jël suñu rap. concentré ko autour de benn affaire rek moom mooy euh, rappeur bu wax rek gars yi dal sa kaw rapport bu nga xamante ne bi nii tamit gis nañ ne yaa ngi dem gars yi commencé di la clash donc yooyu noonu il faut ñu jóge si xam nga ñun man kenn gënuma mieux placé pour wax si ay affaire de clash parce que loolu noonu man jaar naa si dund naa ko quoi donc dañuy dañuy dañuy dañuy bëggoon gars yi bën a seen xel que ne rap bi l' essentiel pas de clasher ay ay rappeur wala ñuy ante suñu biir mais lan mooy avantage moom mooy ñu jéem a xool ni ñuy taaralee suñu hip hop. Mm-hmm. ñu jéem a xool ni ñuy relever le niveau de de notre hip hop mm-hmm. si musicalement ak lyricalement. Mm-hmm. loolu noonu moom mooy doon li nga xamante ne bi nii moom mooy jëmale suñu hip hop kanam mais pas ay clashante et tout donc du de duñ ne kenn nag bul clash bul def loo warul loo war a clash nga clash ko yaa xam loolu sa sa sa carrière la quoi mais man en tout cas lecture boobu noonu laa def ma ne voilà quoi nañ delluwaat si l' essentiel nañ delluwaat si li nga xamante ne bi nii moo nekkoon suñuy ay objectif de début mooy fayatal askan bi xeexal askan bi di waxal li nga xamante ne bi nii moom la askan bi soxla donc looloo tax ma gën a gën a gën a gën a sax génnee sound boobu noonu quoi bi teg tànk génne ba léegi Karbala génne waatagul album. looy xaar. waaw d'ailleurs looloo looloo andi son bi nii sax parce que moom mooy doon moom mooy premier single sama prochain album. di wax gars yi ne leen album bi dinañ génn incha allah si 2020 bii nii. ñu ngi si job man ak Boss Beats mu nga xam ne muy producteur bu nga xam ne mu ngi nekk Thiès. di defar son yi man may defar euh, sound man may bind. donc ñu nekk mu nekk album boo xam ne collaboration la entre un beatmaker et un lu nga xam am tamit si hip hop gars yi gëjoon nañ gis ñaari ñaari collaboration entre un beatmaker et un donc ñu delloo si waat loolu noonu donc di wax gars yi ne leen buñ buñ yàkkamti album bee ngi ñëw incha allah si courant 2020 bi quoi. mun nañ xam neem bi. waaw nem bi moom mun naa la ko wax yow jili deer parce que mm-hmm. yow mën a yow xam nga on a ensemble ñoo bokk tamit Grand Yoff kuñ dëkk mm-hmm. album bi dox leer lay tudd incha allah quoi dox si leer lay tudd quoi dox si leer kon loolu mun naa jàpp ne Karbala album bi cent pour cent thématique la cent pour cent thématique la d'ailleurs dañ ne da soxlawul duñ si def sax ay ay son ego trip quoi mm-hmm. son ego trip yi yëpp ñu ngi waajal ñëw nii incha allah bientôt rek di gars yi dinañ commencé jot yenn son yoo xam ne son ego trip la mais son yooyu noonu dañ koy génnee juste pour yooyu du narul bokk si album bi quoi donc album bi na si gars yi xaar pour cent thématique quoi. hip hop Galsen nee nañ léegi Karbala ak Dip nice. non nice ah nice ah man moom franchement instant yii nii. maa ngi si yeneen affaire quoi maa ngi si yeneen horizon tamit yaakaar naa mi ngi si yeneen horizon ñi nga xamante ne ni comprendre nañ game bi aussi tam ñu ngi si yeneen horizon ku nekk nag bay sa waar rek jéem a xool nu affaire yi gënee nice nu affaire yi jënee jëm kanam donc loolooy objectif bi instant yi mais pour le moment pour le moment moom ay affaire de clashante ay affaire de xuloo ay affaire yooyu noonu yooyu dépassé nañ ko quoi am na solo kookoy Karbala aka Karbaze from Grand Yoff xaar yàlla wetin got ñu koy bëggee bu baax a baax ñu yeggaat ci biir Khadija xoolaat yeneen daanaan encore léegi-léegi